ñu taxaw pour rappeler leen lan mooy journée de la femme di journée boo xamante ni ay jigéen ñoo fipp taxaw nekkat wan nañ leen boole ci société bi jox leen seen gëdd jox leen seeni i droit mais également jox leen seen àq ak seen yelleef donc tey nag moo tax man mi nga xamante ni dama jël jigéen def ko samay préoccupation ngir xam jigéen li mu mën société moo tax ñu ñëw ànd ak yéen feete bés bi nga xamante ni mooy journée nationale de la femme te loolu nag su amee damay remercier toutes les femmes du mouvement Siggi Jotna jiital si la présidente Adja Marème si taxawaay bi nga xamante ni am na ko derrière toutes les femmes di mouvement Sikki Jot Na ñi def tenue traditionnelle yi kontaan naa ci yéen ndax tey wane ngeen beneen facette beneen génn boo xamante ni mouvement Sikki Jot Na am na nag ay cas ak ay cacas donc merci beaucoup je suis donc lii day wane ni valeur yi nga xamante ni moom la Sénégal di incarner tey ngeen ñëw wane ko ci journée de la femme donc je pense que ni loolu c'est un acte fort à remercier et à féliciter ndax nag réew mi réewu diine la réew ethnie la ku nekk daa am foo wante nañu xam ni Sénégal benn gaal la parce que Sénégal gaal gi ñëpp si lañ bokk donc nañ àndandoo joowandoo ko thème bi ngeen xamante ni moom ngeen soulever muy thème bi am solo la digitalisation jigéen ñi war ci jouer rôle am solo parce que day jëpp te jàpp naa dañoo jógee si le monde de l'analogique de l'analogique jëm si monde numérique te jàpp naa ni ñëpp xam nañ lan mooy smartphone parce que ku yor sa téléphone am nga si whatsapp am nga si tiktok am nga facebook am nga instagram am nga twitter donc je pense que tey foofu la réew mi toll réew mi dafa toll foo xamante ni dañuy communiquer sur le digital communication de proximité donc je pense ni tey ma sœur Oumou Kébé expliqué na vraiment jigéen ñi lan mooy avantage yu numérique mais également lan mooy euh, inconvénient yi nga xamante ni am na man nag li ma ciy wax rek di dolli mooy tey internet bi pour ñu mënul xam luy numérique internet bi nañu xool naka lañ kay utiliser ndax tey lu bëri mu ngi yàqu ci dëkk nii ay montage la parce que fan yi rek gis nañ événement bi nga xaw a bëri ki bu ñu jël monté ay événement daaw ay daawaat bi di ko dugal ci réseaux sociaux yi di wane ni Sénégal mu ngi tàkk di wane ni Sénégal am na ay difficultés donc je pense que ni loolu war ngeen ci tenir en compte xam ne tey yàq nit yomb na bu leen gëm lépp lu leen wan ci biir internet ndaxte nit ñi dañuy manipuler dañu bëgg a jaxase dañu bëgg a yàq xelu nit ñi je pense que ni nag yéen ku ci nekk bu dee bëgg na le président Abdoulaye Dièye bëgg vision bi nga xamante ni moom la teg ndaxte nag lu njiit njaaga nag jàpp naa ni son excellence le président de la république Macky Sall la donc di leen wax ni président Abdoulaye Dièye son na c'est son excellence le président de la république donc na yéen si seen Facebook yi ci seen Instagram yi ci seen TikTok yi dee leen ci xool les réalisations de son excellence de président Macky Sall bi nga xamante ni mu ngi xool li nga loo xamante ni mooy développer Sénégal parce que lu ne fa kenn du ko jeex gis nañ li mu def si jigéen ñi tey jigéen ñi gis nañ avancé bi nga xamante ni am ngeen ko ci wàllu àq ak yelleef parce que tey jigéen fulaal nañ ko jigéen jox nañ ko cëram ba institution yu mag a ay jigéen ñoo koy diriger mais également teg ay structures de financement yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi ciy gis seen bopp donc je pense que ni xam leen ni tey li ngeen war a jël si internet bi war a ko jël si TikTok gi si Facebook yi mooy li nga xamante ni mooy jëmale Sénégal kanam te liy jëmale Sénégal kanam mooy un Sénégal émergent mooy la vision de son excellence le président Macky Sall qui veut faire du Sénégal le pays le plus développé de la sous-région africaine te man mii te loolu man mii su ma ko waxee war ngeen ko gëm donc nag di leen gën a félicité mais nag ku ñëw nag si bisu jigéen mën a teral jigéen donc xam ngeen ni président Ablaye Dieye du ñëw fii ba dem te du ma leen teral ndaxte su ma leen gisee sama yaram day tàng su ma leen gisee damay bëgg li ma yor yëpp ma jox leen ko. te ñii en 2019. da ngeen a woote woon conférence le réseau des femmes de Siggi jot na ma fa ay engagement ne maye naa trois billets Makka Covid bi ñëw affaire bi ñu reporté ko yéen wan ni Abdoulaye Dièye wax def ko billet Makka yooyu ma maye woon muy trois confirmé naa ko ñooñu di leen Makka ren du ma foofu dama siy dolliwaat yeneen trois billets Màkka dinaa ko mayaat jigéen ñi donc jàpp ngeen di ren juróom benn jigéen six de dinañ dem Màkka si mouvement Siggi Jotna je pense que ni loolu après dinañ xool naka lañ koy organiser ba yeneen ñett yi des ñu mën ko choisir pour ñu mën a dem te loolu nag su amee nañu xool rek nu ñu mën ko def leneen li ma wax nag mooy jigéen ñi xam nañ seen jàmbaar ku ànd ak président Ablaye Dieye da ànd ak moom ngir développement parce que les femmes sont braves jigéen ñi ay jàmbaar ngeen yéen a yor kër yi yéen a yor njaboot gi yéen a yor société bi moo tax si si li nga xamante ni commencé woon nañ ko mooy les formations dinañ ko pérenniser comité boo xamante ni monté nañ ko dinaa la fa fekk formé la ba mën demal sa bopp te formation yi nag su paree financement yi day ñëw continuer donc jigéen ñi maa ngi leen di rassurer ne leen dinañ leen financer banque municipale bi ñu leen wax léegi nekkatul banque municipale parce que jàpp naa ni nekkuma ci municipalité bi nekkuma maire wante nag dinaa ko def ko les banques de sikki jot na banque boo xamante ni dinañ ñëw di leen financer sans nii ni remboursement je pense que ça sera des fonds perdus boo xamante ni dañ leen koy jox pour ngeen liggéey pour ngeen développer seen bopp pour que li ngeen bëgg ngeen mën ko am te loolu nag su amee jigéen ñi delloo waat leen seen xel ndaxte fi ñu jëm nag xam nañ ko. mooy focus sur Macky 2024 parce que damaa teg benn plateforme di wut un million de signatures pour dire que le président Macky Sall est le meilleur candidat pour 2024 et je pense que aw ma jiixi jaaxa si jigéen ñi wante nag ku si nekk da nga am sa kër am fa sa njaboot am fa sa doom yu nekk say responsabilité te jàpp naa ni ngeen ànd ak président Ablaye mu leen ci taxaw si formation di leen taxaw si financement donc aussi war ngeen a convaincre seen doom yi ñu xam ne Ablaye Dieye fi mu leen jëmee mooy ëllëg bu am solo parce que loolu la président Macky Sall la teg mooy Sénégal bu jëm kanam Sénégal boo xamante ni day ko wu. ndax ñu ngi jëm si exploitation pétrole ak gaz te loolu nag du ñu bàyyi sunu nag dëkk yi ñu wër yëpp gis na ñu mu ngi tàkk te nag am na ñoo xamante ni. ñu ngi lim naan lii raam si ñag bi la jëm mais ñag bu ñag ñoo ko mën a téye donc jigéen ñi yéen ñi nekk si benn kër yi sensibiliser seen njaboot gi wax ak ñoom ne leen bu leen kenn inciter à la violence bu leen kenn génnuloo ngir taal Thiès nag dama leen di sant di leen gërëm ndax fan yi gis nañ dëkk bi ni mu mel gis nañ waa Thiès ànd nañ dal ànd nañ jàmm ànd nañ salaam dëkk boo bëggee defar ko doo ko yàq ku bëgg a defar doo yàq donc naa gën a rappeler la jeunesse qu'il soit une jeunesse consciente une jeunesse responsable une jeunesse qui qui ne sera pas manipulée xam ni man du ma ànd lu dul si développement du ma ànd lu dul ci l'émergence du Sénégal te loolu gis naa son excellence le président Macky Sall ci loolu la nekk ci ci loolu la ñu dénk pour que un Sénégal boo xamante ni ndaw yi dañuy am liggéey jigéen ñi dañuy am ay financement infrastructure dafay dox sociétés yi dañuy gën a émerger ndaxte Thiès bari ki dem président Macky Sall ñëw na fi fii la taxaw def la relance des chemins de fer donc ne serait-ce que ça les Thiessois devraient à la vision du président Macky Sall parce que il a entamé des milliards et des milliards pour la relance des chemins de fer ndax chemin de fer bés bu ñu ko defaree problème mu emploi dootul amati Thiès donc waa Thiès gëm leen son excellence le président Macky Sall signer la pétition pour que le président Macky Sall sera moom nag demandé wu ko mais ñun ñoo bëgg mu nekk le candidat pour 2024 donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni kontaan naa si yéen